ñu ngi fi tey euh, ci turu Gunter Diwald mooy suñu chef d'équipe mi ngi Thiès ànd ak euh, sama conseil suñu sama collègue conseil technique bu tudd Mor Fall ak euh, administration lycée Limamoulaye pour tey tëj formation boo xam ne bii dañ ko jagleeloon ay ndaw parce que programme réussir au Sénégal li ko tax a jóg mooy ndawu Sénégal pour ñu mën a am métier état bi mi ngi ciy def li mu mais ñun suñu wàllu bopp ci projet yi dañuy jàppale état bi dans sa poli politique am ngir xale yi mën a am qualification ngir xale yi mën a am loo xam ne bu ëllëgee dañ ko mën a jëriñoo mu jëriñ seen bopp jëriñ seen njaboot ak seen seen seen waajur tey jii xale yi ñu tàggat fii tey jii def depuis mois de juin ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñu ngi leen di tàggat ci électricité mu électricité bâtiment waaye tey jii yemuñu kese ci formation bi xale yi dañ leen di tàggat itam ci yeneen euh, jumtukaay yoo xam ni dina leen tax ñu gën a mën a xarañ ci seen liggéey mais ñu xam nu ñu war a com nu ñu war a doxalee ak nu ñu war a comporté wu pour mën a gën a euh, wóolu seen bopp ngir mën a am liggéey donc loolu programme bi loolu bokk tax a jóg tey jii pare nañ formation bi jox nañ leen seen lijaas yi léegi nag am na yeneen wàll yoo xam ni ñu ngi koy ñu ngi koy waajal pour ñoom pour euh, vraiment ñu mën a am lu ñu bëgg

ci lañ nekk nii tey jii xale yi jeexal nañ formation bi dañ leen di gunge dañuy dem ci weer bi weer bi di ñëw ñaari weer yi ñëw nii bu ñu paree stage nag léegi cellule appui à l'insertion bu lycée bi mooy waxtaan ak xale yi xool ñan ñoo xam ne ñi dañoo bëgg a liggéey ci entreprise yi ñu tànn leen am ñoo xam ne ñi bu dañoo bëgg liggéeyal seen bopp ñu xool nan lañ di tàggatee pour ñu mën a xool nan la ñu mën a demalee seen bopp mais ci loolu du yem ci kese yóbbu leen stage wala wax leen du ngeen bëgg def bàyyi leen loxo neen projet bi prévoir na également ay kit jumtukaay yoo xam ne yi dañ koy jënd dañ koy jënd jox leen ko ndax ku ci nekk yoro sa saak tey ji boo xëyee boo amee chantier nga dem liggéeyal sa bopp am loo xam ne lii ngi ci ngay suturloo donc programme bi ci loolu la nekk donc duñ leen bàyyi ñu ñu demal seen bopp accompagnement du ci am donc dañ leen di topp ak collaboration ak lycée bi ah, gunge leen ba tey ji lépp lu ñu sant ñoom ñu am ko te loolu phase test la moom laa wax sànq ci ci ci tubaab lii bu réussir dina tax ay buntu ubbeeku pour yeneen ndaw yi nekk biir Guédiawaye ak ci li ko wër yëpp mën a bénéficier wu. parce que lii bu réussir modèle la boo xam ne bii tey jii mën nañ ko euh, kii lawal fu ne xale ndaw yu nekkoon Guédiawaye yëpp yoo xam ne amuñu qualification amuñu xëy ñu mën a ñëw lycée Ely Manioune Laye formé wu fii bénéficier wu ci formation bi donc ñoom bu ñu ubbi tëj. ubbi nañu am nañu yaakaar ne tey jii ak lycée bi kontaan nañ trop seen liggéey am nañu yaakaar ne ci euh, weer di ñëw yeneen filière nañ ko dugalaat encore pour format yeneen ndaw ngir lycée bi gën a mën a kii euh, dem jëm kanam mu nekk un modèle xale yi aussi ñu mën a gis seen bopp ci li ñu leen di jox ci dans le cadre ci coopération internationale GIZ euh, GFA donc loolu daal moo indoon suñu suñu tànk yi fii tey waaw ni mu ko waxee sànq bii mooy première expérience parce que dañoo xam lycée Limamoulaye lycée de renommée la Sénégal ñëpp xam nañu tey jii taxawaayu lycée bi ci Sénégal ak résultat mu fi mos am donc ñun dañu ne am na xëy na partenaires yu dugg si fii mais ñun dañu béy béy suñu wàll ci tool bi ba lii si lycée laay tey jii lu ñu tàmbali nii mu nekk une bonne réussite dañ ko dañ ko dañ ko lewal continuer ko ak ñoom ba yeneen formation encore ñu amaat ko ak ñoom donc partenariat bi du yem fii day gën a law jëm kanam euh, ci pour njëriñu Sénégal ak njëriñu xale doomu Sénégal yi ñu fi nekk tey